mais toujours nag ñu nek grand théâtre ci sargal nee comme ko mais ñu nek fi nag ndaanaan boo xamante ne euh, dootu dootuñu ko présenté si musique Sénégal ndax mom marqué né li nga xamante ni mom moy mooy grand ji bi ñu ngi lay nuyu. di delloo njukkal di la nuyu du kontaan ci yow. alors ñu ngi lay fekk fi ci grand théâtre ci sargal nee comme, ko mais euh, relation ak nee comme. ko mais. ko mais comme lu mu wax rek sa yeneen naataangoo yi tay Sénégal mo moomee Sénégal mo ayé té suñu yaay mo ayé comme lu ñuy wax rek nga jox nit ko hommage bu muy génne àdduna loolu du hommage mu dund nga doon ko hommage moom mooy hommage moo tax tey ñëw delloo ko njukkal te delloo jukkal koo xam ne kooku yaay la boo xam ne ndeysaan mot na yaay xam nañ koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram yàlla yokk ko te mu yàgg si kanam njaboot du ñu tete nee na comme référence la waxuma sax liggéeyam mais lu mu jàppale sénégalais yi ak lu mu fonk Sénégal ak lu mu fonk aussi lu mu doon. kon nak euh, mo taxé tay man djibi dara ma déplacer wu tay sama yaama xew. waaw tey sa yaay moo xewle mais djibi ñu gis le lu bari ci artistes sénégalais yi ñu gis djibi am ngeen relation bu sori ak ñom d'habitude sa relation ak artistes yi. waaw man dama né ñun ñëpp ñoo bokk ndé ñoo bokk baay ndax euh, way kat bo gis rek macha allah da ngay ñaan yàlla fu mu toll nii nga sa nawle fonk la te mu xamé la ràññee la té man je crois que man loolu lañ ma yaro té loolu la xam man dama fonk sama nawlé voilà luma fonké sama bop loolu la fonk sama nawlé kon sama relation sama sama sama yenen artistes yi amul dara lu dul jàmm ak salaam man képp ku ma xam nga xam Djiby Dramé dem nga xam ko tay nga xam ne man xawma ma ma xaar ma yàlla man ñep la yemale kon nak sama sama nawlé ñom xam nañ ma man xam na len xam nañ man je suis toujours la même personne je ne change pas. d'accord lan mooy secret ji bi ba fu mu rek si sañse bi ñëpp daal di ne waaw. kon damaa sanctionné <laughs> ok waaw je crois que lu wax rek euh, souvent sama interview dama ko dafa méngoo ak sama liggéey waaw sama tenue de travail la bokk su ma nee dem euh, milieu demee solo loo xam ne instant bi amaana sax micro dina méngoo ak tenue bi moo ni nag mais du milliard wala million. solo bi du waaw ñaareel su amee aussi fu mu toll maman Serigne njëkkee la <laughs> am benn problème. dina gis nañ récemment mu def sorti que ne fiirul mais moom tamit bëggul lii di ñaareel lan ngay wax si loolu. waaw wax na ko de xam naa ne instant mu ne la comme lu ma ko rek aaw na la jig am aaw su la jigee am ñaareel su ñëwee nga nga yaatal ko rek. mais pare nga pour am. man mii Djiby Dramé ah xëy na fii am na ñeme naa ko mais su ma demee kër gi est ce que ñeme naa ko wax. <laughs>